ba nekk ay xale ba léegi waa kër Sidi Gaye ñoo nekk jumaa ji donc ñu leen gërëm ci loolu di leen sant monsieur Sène nee na dafa ñëw pour participer indi ndimbalam ci jumaa ji ñu tabaxaat ndax tabax jumaa du jeex tabax jumaa c'est tous les jours mu ne woon nag dafa ñëw euh, mbiru feebar bi moo tax li mu waroon indi na mu demee demeewul noonu ndax euh, su ñu demee mën naa am li moo def ci daara yi ak néew si dëll yi du fa àgg mu ne nag cinq cent mille bii moo ko def ci jumaa ji ñu ma leen waxee rek ñun ñoo ko bokk jumaa ji ñaan yàlla lu fi ñaan rek yàlla ko yàlla nangu mais ba gën a jiitu mooy li am fii ren tey jii di feebar bi ci ajuma lay fi ñëw tey jii

li ngay def kon li ngay yóotu yàlla na ko yàlla jox te mu jik la euh, xam nga nit juddum jaxaaw nga doomu jaxaaw nga te lu jaxaw taxawu yaa nga ca taxaw bari nga fi morom yoo xam ne ñu ngi ci biir jaxaaw am lu mel ni li nga am mën ko ci def itam te defuñu ko kon nag fa tabaarakallaahu ñun duñu def lu ñu sant yàlla ba nga xamee ni am nañu doom yoo xam ni mën nañoo taxaw taxawaayu seeni i baay ak seeni maam loolu am na tey taxawaay boobu nag nga taxaw tey parce que suñu nee jaxaw ñu koy imaam di faral di waxee jumaa juñ fi mës a tudd jee ci jiitu c'est la mère des mosquées te moo am loolu nag dafa am solo ku bëgg loolu la ku bañ itam ñu xam ne fii mooy jumaa ji jiitu ci jaxaw yàlla baax na nag ba nga xamee ne am nañu doomu jaxaw yoo xam ne xam nañu loolu te di ko jëfe jëfee itam loolu dañ ciy sant yàlla lii ngeen def lu ñu def lu sant leen gërëm leen ñaanal leen yàlla ñu ñaan ci kattanu yàlla ni ko suñu doom ji waxee léegi feebar bi yàlla ko fi yàlla yemale parce que ñëpp moom lañuy ñuy daw waaye lii nga xam ne moom ngeen def ci jumaa ji dafa am importance parce que boobaak léegi ñu ngi ciy yëngu alaaj Malick Boy mii tey jii mooy coordonnateur bi lépp loo xam ne ñu ngi koy doxal ci jumaa ji ci loxoom lay jaar xaalis bu fi ñëw itam ci loxoom lay jaar liggéey yu ñuy def itam toutes les dépense faites moom su suñ defee ba mu su ko wisewul xaalis du génn loolu nag kóolute nit la ak njubam parce que su fekkoonte ni tey jii jubul woon am na yu bari yoo xam ne kenn du ko teg ci loxo waaye ñun ñu dund ak moom xam nañ ni mu mel ma tey jii lépp loo xam ni alal loo xam ne ñu jëm ci jumaa ji la dañ ciy sant yàlla parce que bu jaaree ci loxoom xam nañu dinañ ko teg fa mu ko war a ñu ciy sant yàlla bu baax. imaam mu ngi di sant mu ngi leen di gërëm di leen ñaanal yàlla yàlla leen yàlla jàppale ci dara yonent bi sallallahu alayhi parce que dafa am importance trop c'est un geste peut-être vous le prenez symbolique mais c'est un grand geste waaw vous le prenez symbolique mais c'est un grand geste beneen jamono ñoo ngi koy ñaan ñoo ngi ñaan yàlla ñu kàttan ak mën-mën pour beneen ñu mën a defaat benn participation dégg nañu seen kàddu yi kàddu yu rafet doyen bi wax ñu si gërëm et vraiment di kontaan jërëjëf waaw su tabaski jotee dama jege si lool dina yónnee ci man ndaw su mel ne mayo koor mii la ko yónnee ko lii boo demee joxal ma ko imam lu jëm ci tabaski koy def saa sabab ki jotee te ma war ko ca gërëm waroon ñu jóg sax ngir moom gërëm ko ci te loolu defuma ko kon nag boo ma amee occasion bi teew dana ko xamal ni da nga daan yónni ci man kan ko daan yónni ni ngi nii toog ma toog daan naa ci jot ñu ngi ci gërëm bu baax dana ci sant dina ñaanal yàlla te kenn ku ne yaa xam la nga bëgg yàlla na ko yàlla defal ñu bëgg sa bopp boole ca mujj lépp loo dugg la nga ca am ndam te boo ci génn yal na ko yàlla defal nga am ci mujj bu rafet te jox la lu ëpp la nga jóge ci gërëm yonent bi barke alxuraan